immeuble bi yëpp la ñu lakk waaye nag ñi doon def jëf ji mujje wu ñoo dugg ci biir bâtiment bi fi ñu bëggoon a jot mooy siège Pastef toll ci ñetteelu étage yu bile immeuble lu ne mel nag ñi ko def nee nañ du ñenn ñu dul ñi fare si nguuru Sénégal lañ sa jublu mooy defanteeg nitu Sonko yi nga xam ne ne ni ki démb ci manifestation yi ñu doon amal fii ci Ndakaaru jot nañoo yàq ay këri kilifa yu bëri lañ doon ŋàññ mooy téye bi ñu téye kii di Ousmane Sonko sa këram chantier wu bus rapide transit mucc ñu si yëf yi vitre yëpp la manifestant yi toj si bile section moom daanaka amatul vitre bu fi taxaw lépp la ñu daaneel wal ka ba mu mokkaru mbox yàqu-yàqu yu bëri na lool ba jéggi dayoo. daanaka ay million lañ fi yàq ay milliards lañ fi yàq même guichet yi yëpp yàq nañ ko lépp taal ko ay même même gaa yi seen groupe bu mag bu nekkoon fee moo doon defar perron bi nii fu berta bi war a jaar gars yi laq nañ ko te loolu ay millions lay lay jar vraiment loolu rafetul. Euh, waajur yi laay wax na nañu yedd seen doom yi parce que doom yi xale yi si kër lañu jóge si kër lañu jóge ñëw ñëw si mbedd mi donc ku nekk na yar doomam. ouvrier yi am lu leen metti ndax si seen i kàddu neexul ñuy defar ñeneen ñi di yàq. dañuy defar pour le Sénégal soit émergence defar ñu pour ñëw yàq bu ñu fekkoon loolu kon du ñu jóge suñu àll bi ñëw liggéey quoi mais gars yi bu ñu gisee li li ñaaw na trop mais moo gën ñuy defar gars yi yàq loolu du yoon quoi. yëf yi nag terewul liggéey yaa ngi woy ci chantier bu BRT bi le ouvrier yaa ngi def seen kéemtulaay kàttan ngir mën a rek respecter délai biñ ne daañu ko jeexal liggéey yi